yawut ya saar juróom melkisedek moomu doon buuru salem moo nekkoon saraxalekat ca yàlla aji kawe ji gannaaw ba ibraayima dàqee buur ya ba dellusi melkisedek gatandu woon na ko di ko barkeel noonu ibraayima fa fukkeelu cër bi maanaam asaka ci li mu jële woon ci xare ba lépp jox ko ci lu jëkk turu melkisedek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 kon du soxlaati ab saraxalekat ni ko melkisedek nekke ci fànn gu wuute ak gu aaruna te bu ñu fi jëlee saraxalekat yi ak seen liggéey dañoo war a toxal itam yoon wi ñu fi tëraloon noonu yéesu mi nuy wax mu ngi soqi ko ci geneen giir gu bokkul ak giiru lewi giir googu nag amu ci kenn ku musa def liggéeyu saraxale ca saraxalukaay ba li wóor moo di sunu boroom mi ngi soqi ko ci giiru yuda te bi musaa bindee ci mbirum saraxalekat yi limaaliwul woon giir googu li waral mbir mi gën a leer moo di ne beneen saraxalekat bu mel ni melkisedek dafa ñëw te defuñu ko saraxalekat jaarale ko ci yoonu ndono waaye fal nañu ko ci dooley dund gu amul àpp ndaxte seddal nañu yéesu lii doon nga saraxalekat ba faawu mel ni melkisedek noonu tebbi nañu yoon wu jëkk wa néewoon doole te meññul dara ndax yoonu muusaa yeggalewul dara ci mat waaye dugalal nañu fii yaakaar ju gën junu mën a jaare ngir jege yàlla te rax ca dolli giñ ànd na ci ndaxte ñi ko ci léewi doon nañu ay saraxalekat te kenn giñul waaye nag yéesu moom doon na saraxalekat bi yàlla giñee ne ko borom bi giñ na te du dellu ginnaaw mukk doon nga saraxalekat ba faw ngiñ loolu moo tax yéesu nekk tayle giy wóoral kóllëre gi gën te it yeneen saraxalekat yi dañoo bare woon ndaxte dee moo daan tax duñu mën a sax ci seen liggéey waaye yéesu miy dund ba faw sasoo naa liggéeyu saraxale bu sax ba faw loolu moo taxit mu mën a musal te yeggale ci mat ñi jaar ci moom te bëgg a jege yàlla ndaxte mi ngi dund ba faw ngir di leen ràmmu kon nag yéesu mooy saraxalekat bu mag bi ñu soxla dafa sell du def lu bon du taq bàkkaar bokkul dara ak bàkkaarkat yi te yéege nañu ko fa yàlla nuroowul ak yeneen saraxalekat yu mag yi soxlawul di def bés bu set ay saraxi mala ngir bu boppam jëkk teg ce yooyu mbooloo mi yéesu def na sarax benn yoon ba faw ngir dindi bàkkaar yi bi muy joxe bakkanam naka yoonu musaa aji néew doole yi lay fal saraxalekat yu mag waaye ngi ñu yàlla gi ñëw gannaaw yoon wi doom ji la fal saraxalekat bu mag bu mat ba faaw